sunu gan Daouda Ba Alaykum waaleykum salaam euh, Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu ki ñu bokkal plateau bi Georges Déthié Diop. di nuyu bépp auditeur euh, RFM. jërëjëf euh, Georges ñu koy nuyu bu baax di ko gërëm ndax. moo fi ne woon ci ci jamono yi nu weesu <laughs> Georges jërëjëf <laughs> Daouda Ba yow porte-parole réew mi parti Idrissa Seck bi nga xam ni tey lay dogoog Macky Sall Euh, ci li ngeen àndoon euh, jamono yi nu weesu yëpp euh, ngeen junjoon ne fi réew mi tolloon ak coronavirus moo tax ngeen ànd ak Macky sàll ndax jafe-jafe yi réew mi nekke Idi nag nee na candidat la ci élection yi ñu ñëw te nee na Macky warta bokk moom moo war a bokk ak ñeneen xëy na dina déposer lettre de démission nee na itam ministre yi nga xam ni ñooy bokk ci réew mi te ne ci gouvernement bi fi ñu toll di Yankhoba Diattara ak Ali Saleh Diop ñoom it dañuy dañuy génn euh, am na nag laam-laame gu bëri ci seen digg ak Macky Sall euh, am na ñu ne da ngeen ni da ngeen ni wure déggoo ngeen ndax tàggoo gi ci politique tàggoo gu seddee nii dafa de su koy faral di gis Sénégal am déet. waaw di dellu di la nuyu Babacar di euh, ñaan yàlla nangu suñu koor gi ñu génn di déwénati ñëpp di baal wax ñëpp di ñaan yàlla nangu aussi kooru euh, wayu jàngu bi suñu frères et sœurs chrétiens yi donc euh, oui Babacar xam nga président Idrissa Seck comme ni nga ko waxee en 2020 dafa ñëw répondre à la main tendue du président Macky Sall ñëw jàppale ko Macky ci compétence président Idrissa Seck ak ci expérience am mu tolloon moment yoo xam ni réew mi jaxasoo woon na tiit bëri woon na euh, bala bëri woon na ci àdduna bi président Idrissa Seck de par son patriotisme mu mënoon nag toog dans son coin ne man maay chef de l'opposition mën naa xaar tranquillement 2024 ñëw campagne euh, jël réew mi ou ma nekk di yëngal euh, garab gi di yëngal réew mi maanaam nekk dans une position d'opposant jafe-jafe am je suis un peut-être patriote trop trop trop trop trop toujours soucieux de la paix de la stabilité du Sénégal soucieux également du développement du Sénégal Sénégal comme

am na ñu bëri ñu ràññee li mu ci def am na ñeneen ñu ràññeegul et bés bu jotee incha allah dinañ ko gën a euh, leeral mu leer ci bopp sénégalais yi euh, loolu ngay tuddee lay du lay euh, ku nekk nag mën na analyser de diverse manières mais du lay lu dëgër la lu tegu la parce que on a vu pays yu ñu wër. bi Covid bi ñëwee tension yi fa am. ak non yéen moom da ngeen vraiment da ngeen dem ci nguur gi pour noos. alors lo lo lo Idrissa Seck soxlawul dem ci nguur pour noos jot nañu leeral kan mooy Idrissa Seck ak parcours am yàlla daf koo teral macha allah avant 2000. donc avant l'arrivée au pouvoir mu nekkoon chef d'entreprise yu bëri gagné ay marché yu PL 480 du riz américain moo ko gagné woon mën naa ni foofu la commencé tedd donc Idrissa Seck ñëwul Sénégal pour wut si fi nguur wala xaalis au contraire dafa am xam-xamam am compétence yalla baxé ko ko mu ñew yéné ko sénégalais yéné sénégalais yoy d'abord mo waral en 95 bi mu nekkee ministre du commerce mu dem gis lu bax ca Washington muy internet mu ñew fexé nu mu ñewé Sénégal lolu aussi mo waraloon. bi mu bi mu nekkee ministre boobu vraiment Ba. loolu loo maa ngi ñëw Idrissa Seck bu xam nga bu toogee fi nan mo indi internet Sénégal vraiment itam c'est compliqué hein lol du Idrissa Seck moko wax xam nga kan moko wax ay auto universitaire Olivier Sagna Steve Steve euh, Steve Atte Christopher Brun ñoko bind ci sen livre ci Nasaran ci ci livre buñu publié Université d'Oregon dafa exister mu tuddu l'historique du Sénégal de 1989 à 2004 loolu lu am la lu bu ma paree la jox livre bi nga nga garder ko. nee na tamit lii partition moo eh, maris bi ko coon di way. waaw eh, alors alors alors alors loo loolu tamit boo bëggee ñu taxaw ci leeral. effectivement loolu mu wax dëgg la encore une fois du moom moo ko wax keneen moo ko bind ku ñuy woowee Baba n'est nekkoon directeur de la politique agricole au ministère de l'agriculture mu bind ko ci les mémoires d'un ingénieur africain euh, dans l'antichambre d'un pouvoir euh, du du pouvoir de, 1964 à 2014 Mon livre publié en 2015 aux éditions Armatan, sénégalais Mon nañ dem fekk ko fa explique Idrissa Seck en tant qu'auditeur au Pricewaterhouse euh, Coopers en 93 Waterhouse PricewaterhouseCoopers pardon en 93 en collaboration avec le cabinet de Mayer Howard via le cabinet Mayer Howard, mon défense audit du secteur du riz moment où dafa existe le niveau ñuy caisse de stabilisation et de péréquation des prix et mu donne entité boo xam ni moo seul à importer à régulariser le riz Idrissa Seck ñëw def audit gis ni que déjà il y a y a y y a un déficit de de onze milliards et de 4 milliards annuels. avec la subvention Georges bëgg naa Georges bi non hmm. da nga ma da ma ci sujet mais moom ma Babacar. c'est important parce que sénégalais tamit bu ñu toogee seen leader yi di leen wax ñuy dégg laaj nañu xam yenn ñu xóotal loolu ñu leen di wax ngir mën ci am ay jàngat alors euh, Baba Dioum mi bind loolu li mu expliqué mooy Idrissa Seck en tant que auditeur d'ailleurs ça profite euh, ça nous profite ñu leeral euh, lan mooy métier Idrissa Seck pour ñi nga xam ne dañuy calomnier ak wax lu leen neex ci moom audit boobu mu def moo permettre am ay conclusions yu fexe ñu privatiser euh, la caisse de péréquation. De sorte que pénurie d'offres merci mm-hmm. beaucoup Nous dissoudre de sorte que euh, qualité variété diversité de riz dont le riz parfumé dont il parle menant dit

parce que vous on tout tout li nga euh, la présence du conseil économique social et environnemental euh, kaddu ça veut dire que liggéey ba foofu euh, on a décrié son mode de de management la communication pas que des conseillers politiques mais ñi sociétés, ci société si le foofee sax wax nañ ko. alors lu qui ci li mu jur mooy li am solo muy paix ak stabilité parce que mom joxe na exemple pays yu bëri d'ailleurs lors de sa xanaa loolu mars 2021 bi réew také tàkkee bokku ci maa ngi ñëw maa ngi ñew ah, ah. ngi au contraire parce que bu fekkoon moment boobu président Idrissa nekk ci opposition muy dóor di buux di xëcc wala di xambtaal kon kay tey kenn waxatu donc alhamdoulillah dal bobu mu indi ak stabilité bi buñu xolé pays yu ñu wër mu xam Mali Guinée ak Burkina gis nañ la fa xew. bi Covid bu njëkk ba ngay wax de Idi bu tay bi gagné wul dara. bi bi Covid kees a ngi nii élection yu mujj xam nga mëno enchaîner ay ay question ah non mais bo waxé boo waxee dañuy leeral. parce que yow yow ya wax décce mu laaj ma bu ma laaj may tontu. bo bëggé boo mën nañ dem fi ba 9h amul problème. waaw d' ok tranquillement ah, alors donc pour yégalé dal boobu mu indi lu am solo la. parce que gis nañ pays yu ñu wër bi Covid bi dugg see tension yam fa yok créer yenn conflit ba l'armée jël pouvoir parce que tamit opposition bi ak société civile ñoo doon yëngal di wane seen mer di toj di manifester armée ñëw jël pouvoir bi ñoom ñu dem de côté tey ñu ngi wut feneen fu ñu réfugié donc loolu un patriote comme président Idrissa Seck bu amee clair clairvoyance boobu bu amee cette vision étatique républicaine boobu mu am ba décider teg ambition ak intérêt de côté dem jàppale président Macky Sall ngir dal am en tant que chef de l'opposition ngir dal am

donc Abdoulaye Wade dinañ comprendre bu ci mais li sénégalais yi comprendre aussi ci digënté bi entre 1998 et 2000, bi ñëpp toogee bi ñëpp mom physiquement financièrement techniquement dem jëli Abdoulaye Wade ma nga dafa Paris mu jëli ko fexe principal de l'élection en 2000 donc quand on dit l'artisan principal a évidemment il y a d'autres avec le risque de forclusion à l'époque xam non, non non non non ah, Babacar non, wax lu leer la bâtir cette coalition dont vous parlez de jëli ay à ak à ak confirmer ou pas participer financièrement physiquement techniquement dans de lan la gis ni mo ci top moy ba mu pousser pour les bons yeux de son fils mën nañ ci baña yag yow ci mais pour continuer au conseil économique social et environnemental sa collaboration directe avec Maki, même en dehors du conseil économique social et environnemental il na que nous positivement au pays Fofu au conseil économique social et environnemental dafa nekk une institution qui euh, c'est politique on peut dire donc il y a un agissement <laughs> vous comprendrez très bien que politique ne peut ou pas. Il y a une politique qui une da ngeen carte a non non non Georges ce que wax ah, ni ah. doxalinam foofu. Ah. mën naa la jox exemple yu bëri ci il doxalin a un conseil qui ci euh, approuvé positivement nous avons apprécié positivement qui nous a comme doléance bu jëm président Macky Sall Idrissa fait beaucoup ba taxaw ci ba mu réaliser wu mën nañ ci exemple mais amul solo alors euh, donc bu fekkee institution politique nous am ñu fa coalition qui ñi ànd ak décision président Idrissa Seck ñeu jappalé Macky Sall bi ko wowe ñeneen ñi bañ ci and donc mën nañ comprendre yenn doxalin yu. mais ce ne sont pas que des politiques qui sont prononcés ci question bi benen bi. benen bi mooy mom de la société yo nga xamante na fi kaddu wax ko. d'ailleurs d'ailleurs le fait que président Idrissa euh, genn ni démissionné luma ma nawlu la lu la. parce que gis nañ ciow bi fa commencé won am lui un républicain respectueux des institutions très très responsable il a préféré loolu bokk na peut-être qu'il li tax mu préféré dem jóge fa ngir dal am am ak une bonne marche de cette institution là et pour aussi clarifier c'est-à-dire une une une volonté de clarifier les choses il est candidat mon je dafa mus am comme li wax projet politique ou sorti xam-xamam sorti compétence am du Sénégal ak fu mu mënti station bu mu président Macky Sall a fait une mu yëngatu ci lolu fa xam ak expérience am jappalé ko patriotisme encore une fois teg ses ambitions de côté fait dafa jot en demandant les voix des Sénégalais ci station oui la station présidentielle ce qui est très très normal et une volonté de clarifier cela de passer à cette nouvelle étape là beaucoup na ci li tax décider euh, le président Macky Sall. léegi moom chef chef de l'opposition. opposition. dem dem dajeeg euh, sénégalais waxtan ak ñom néna na ba léegi moom chef de l'opposition. opposition. bi ban opposition lay doon opposition carrément opposition wala opposition xaaritu nguur. alors xam nga mom mu wax moy chef de l'opposition, opposition yaakaar ni waruñ ko tuddee non chef de l'opposition, bi liko wax moy constitution. dans l'article 58. cinquante définir le statut du chef de l'opposition et pas du parti leader de l'opposition. Donc c'est important pour nous, Amdi Khidjara. Effectivement, le président Idriss Seck, moi, chef de l'opposition, tout simplement parce qu'on a, régime, on a un régime présidentiel. Macky Sall, le euh, Sénégalais, il fall. tab Idrissa Seck comme deuxième mu top ci moom. ah non non non mais bu bu bu ci Macky Sall nag. bu ci Macky Sall donc euh, loolu ngay wax ne loolu loolu ngay wax ni chef opposition la moom les na léegi mënul jóge ci Macky Sall delluwaat ci opposition bi bëgg chef de l'opposition, opposition. mënul nekk léegi man damay ben samp benn Babacar. Ah. Euh, bi président Idrissa demé fek Macky Sall ngir ñu liggéey bi mu fek fekki président Macky Sall ngir ñu liggéey yeen kan ngeen jàppoon ni chef de l'opposition ak ci fan ngeen ko tek

donc arrivé troisième moyen. ñeu donc vous êtes vous êtes dans la même logique. place donc vous garder cette même logique. Hein? non lu question yomb ou pas le sénégalais yi décidé la loo xam le la sénégalais dinañ ci jëlat décision inchallah en 2024 fibo ba foofu nag yéen ci li ngeen pour wax ni Sonko mo doon chef de l'opposition ñun am nañ droit tënku ci pour wax ni Idrissa Seck actuellement mooy chef d'opposition puisque il est retourné dans l'opposition mais ban opposition lay def opposition radicale wala opposition xaritu Ngour mais Idrissa Seck c'est i seen i député yi sax léegi xam ngeen xam ngeen Idrissa bokk dañuy gën benn bokk yaakaar xam ngeen Idrissa Seck opposant bi mu yàgg a nekk lay continuer nekk mooy un opposant responsable républicain

bu gisee lu jaaduwul dina ko wax ci anam yam koy waxee bu gisee lu jaaduwul dina ko apprécier. politiquement seen député dañuy dem wala duñ dem. suñu député loolu lu ñuy waxtaanee la ci biir parti bi incha allah lu ci am rek dinañ leen. dinañ leen ñaata député ngeen am fi ñu toll nii assemblée am nañ benn député à l' assemblée. Euh, léegi ñoom jatara d' accord nañ dinañ génn jatara da yàqal ngeen ko wax dëgg yàlla. waaw ñoon xaar ay projet defar stade ak yooyu ay milliards yu bëri mu war a liggéey war a wane dooleem mën-mënam

ok am une réponse pour leer bu ci kilifa gi pourquoi nga bëgg ci am laam Le président Idrissa Seck dina déposer sa lettre de démission tey pareil ministre Yankhoba et ak ministre Ali Saleh yi may saluer au passage une loyauté parce que li ngay wax aussi c'est important ñoom dañu engagé woon aux côtés du président Idrissa Seck pour dem le président Macky Sall tey jii mën nañ ko def ci benen anam bo xamni toujours day jural. utilité ay magum jëm tamit ngeen di jaabanteloo opposition ñam nguur. génnaat ñëwaat ñi xam nga. Ah. justement ça ça traduit yow logique bi nga am ci dem liggéeyal pouvoir dem liggéey ak régime. yow ya koy tuddé ñam nguur question de patriotisme la jël say compétence ak sa expérience ñëw jox ko sa réew ñu jariño ci bu joté nga ni changé na méthode génn na fa ma truc damay dem lajal sama bop pour luñ may jox ma gëna ñongal ñoŋal la ma commencé won ci bir lolu c'est à saluer c'est patriote et jàppewu moko ay mak yu ñuy jaaba njàlleek yoyu non non dañu engagé wu au côté du président Idrissa Seck gëm idéologie gëm ni mom ni mu nara a réew mi lolu moo mooy gën ci sénégalais et peut-être il sera incha le meilleur président de la République loolu lañ gëm jàpp ne war nañ mën a ànd ak moom génn dem laaji voix sénégalais dem waxtaan ak ñoom logique pour logique convaincre leen logique pour logique Idrissa sek dem ministre yi ànd ak moom logique pour logique est-ce que député bi warul def noonu mais logique pour logique député bi loolu la war a def sauf que man instant bi info bi ngeen ma laaj ñu ngi koy waxtaanee suñu biir parti euh, amul lam lamé ci benn mbir ah gis naa nga def un petit sourire euh, Marietou Dieng notre Mati Marietou Dieng notre député mhm. euh,

paix et stabilité pour mener a ci développement économique bi hmm. donc jamono yi la électeurs yi war a gën xel ak jangal ci président Idriss Seck hmm. ndax il remplit tous ces critères là Daouda Ba porte parole réew mi jërëjëf jërëjëf Georges ñu ngi ziar Fati euh, mbokk yi ñu yendu ak jamm.